ñu ngi nuyu bépp auditeur u mais FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar quatre-vingt-dix-sept point cinq rawatina euh, seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot dix heures jàpp onze heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle euh, dalal Omar sar bu mouvement nitu dëgg ñu fas yéene waxtaane euh, ponk yu bare yoo xamante ni soxal na actualité bi ponk yooyu le dinañ ci boole arrestation wu ñenn ci activiste yi ku si demee ni ki Guy Marius Sagna nga xamante ni ba léegi euh, mi ngi ci euh, kaso bi Clédor Sène ba léegi mi ngi ci euh, kaso bi daañu ko waxtaanee ak lépp lu soxal émeute yi nga xamante ni jot na fee am fépp bi ñuy woowee révolution ak yeneen i ponk yu soxal actualité bi ak tamit affaire Sonko aji Sarr attaque bi nga xamante ni ci émeute bi ñu ngi ko doon attaqué ay entreprise française daañu ko waxtaanee ak kile di Oumar Sarr ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu moo ñu ngi lay nuyu di nuyu waa kër gi yëpp waa réew mi FM. Mhm. di leen di nuyu directeur bi aussi di nuyu waa mouvement Nifli Dëgg ak sénégalais yi ñuy déglu yëpp. voilà Omar Sarr ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité euh, laaj bu njëkk dinañ la laaj naka nga gisee arrestation euh, bu Assane Diouf Assane Diouf ba léegi mi ngi ci euh, kaso bi xam nga anam yi nga xamante ni moom la ñu ko tegee loxo ak kile di Clédor Sène ak kile di Guy Marius Sagna lépp rek daal di juddoo ci coowal affaire Sonko aji Sarr nga xamante ni si kanam dinañ ci daal di ñëw naka nga gisee tëye bi ñu tëye actuellement kile di Assane Diouf Clédor Sène ak Guy Marius Sagna waaw parce que arrestation yooyu yëpp mën nañ leen considérer comme ay arrestation yu arbitraire parce que mm-hmm. Macky Sall moom moo nanguwul ku taxaw wax ko lu bokkul ak moom philosophie bi muy doxee moom moo nanguwul ku taxaw di opposer euh, ci doxalinu gouvernement am nga ciy teg ay critique wala leneen lu mën a doon mm-hmm. donc loolu mooy malheur bi mm-hmm. donc loolu moo dal Assane Diouf moo dal Clédor Sène moo dal Guy Marius Sagna ak ñeneen ak ñeneen Euh, citoyen bi am war na mën a am droit liberté d'expression au moins su amee yow njiit bi soo amee li ngay def te citoyen bi àndu si au moins war nga ko mën a li gën a ndaw mooy mu wax ni liikat ànduma si xoolaat leen ko parce que ñoom ñoo ñu jàngal dans la constitution ni le peuple est souverain la souveraineté nationale appartient au peuple su fekkee ne loolu gëm nañ ko mm-hmm. mais nañu bàyyi peuple bi exprimer wu mm. ci kàddu ak ci jëf ak ci naqarlu te loolu yenent moo ñu ko jàngal sallallahu alayhi mu ni su ngeen gisee loo xam ni du dëgg du yoon neexul leen jéem leen ko dindi ak seen loxo wala ngeen wax pour mu dañ wala ngeen naqarlu ko mais wax sax Macky Sall mënu ko may population bi te pourtant Macky Sall avant muy nekk président du woon dara amul woon benn pouvoir pouvoir yi muy yor yépp population bi ñoo ko ko jox les population boobu lay noot ni leen man maay nekk na fi kenn du fi wax kenn du fi sëqat te loolu nag ñun mënuñ koo nangu. mais yow naka nga gisee <clears throat> parce que li tax ñu teg loxo euh, dernièrement euh, Assane Diouf Clédor Sène ak Guy Marius Sagna jàpp nañ ne dafa am lu ñu doon préparer loo xamante ni c'est dangereux mouvement soulèvement wala yu demee noonu ba tax euh, ñu teg leen loxo naka nga gisee loolu. mais problème bi loolu c'est très important te nañ ci waxtaan techniquement parce que peut-être loolu ça n'a rien à voir ak euh, loolu mën nañ ci waxtaan techniquement ba pare ñu démanteler état bi ci côté boobu noonu. Mhm. ñu ñu gis seen faay ñu xam ni ñoom tamit loolu injustice lañ ko tegaat xam nga lu tax parce que délit d'opinion constitution bi da koy tere. Mhm. maanaam nit ci xalaatam rek opinion rek loo xam ne nii amoo ci benn preuve matérielle nga jàpp ko ci tëj loolu constitution bi daf koy tere comme ni ko Macky Sall di defee tout le temps rek di violer constitution bi il est le plus grand violeur de ce de ce de ce pays là constitution bi day tere loolu léegi su fekkee ni Clédor envoyé na benn audio. Mhm. audio bi niru lu ñuy préparer mais amul benn amul benn kii matériel. Mhm. amul benn preuve matérielle bu wane ni def nañ lii ak def nañ lee ak def nañ lële. loolu mën na nekk xalaatu Clédor euh, mais aussi mën na nekk ay code xam nga communication dafa dafa dafa bëri ay ay ay ay forme mais mën na nekk ni Clédor il il communique à travers des code donc kon fekk Clédor ñëwul taxaw jàkkaarloog euh, enquêteur bi wax ko carrément ni ko man ak Assane Diouf ak Guy Marius Sagna dañu bëggoon a taal réew bi mu def aveu. fekk Clédor deful aveu ñoom amuñu droit jàpp ko parce que ñoom defuñu benn investigation. ci ojo bi. waaw ci audio bi amul benn investigation boo xam ni def nañ ko ba gis beneen nit boo xam ni ñëw na approuvé ni Clédor était en train de comploter avec mois pour ñu def lii def laa def amul. donc kon su fekkee ni Clédor nag mu ngi doon waxee ci ay code nag kon dañ koy tëj injustement donc kon il faut que ñu respecter loi yi respecter constitution bi loolu mooy suñu problème ñun Sénégal c'est kiinu qui nous dirige ne respecte pas les lois et ne respecte pas la constitution. dañuy def lu leen mais guñ leen dañ leen téye en attendant. mais pourquoi ñu leen di téye <coughs> loolu moo dul yoon. loolu xoola loolu su fekkee mu ngi ci texte yi nañ ko dindi yaakaar benn affaire si nit rek nga ne xaaral ma téye ko ba xool pare déedéet. mais def ko sous contrôle judiciaire nga bàyyi ko mu nekk ci njabootam gis nga gars yi dañuy fowee euh, liberté doomu aadama yi xoolal Macky Sall daf koy fowee ak ñi mu àndal ak procureur am ba Bassirou Gueye ak gendarme yi collaboré ak moom te loolu war nañ ci mën a taxaw gendarme ak policiers yi collaboré ak Macky Sall mais on peut les considérer comme des traîtres parce que ils ne sont pas des gendarmes ni des policiers de Macky Sall ils sont des gendarmes de la République du peuple ils doivent nous représenter ils doivent nous protéger mais waruñu wéy ci ay caprice su Macky Sall Macky dafa am ay caprice léegi na su fekkee ni les hommes de loi ñoom ñu ngi topp ay caprice su Macky Sall Macky Sall s'il a envie d'enfermer quelqu'un ñoom ñu jàppale ko si mais ñoom ils ont failli à leur mission wala xamuñu lan moo tax ñu teg leen foofu di leen jox salaire mais yow naka nga gisee euh, la façon euh, bi nga xamante ni euh, Assane Diouf moom lay xeexee parce que ñu bëri dañuy wax ni waa Assane Diouf soo xoolee contenu bi dëgg lay wax mais saaga yi moo ko yàq yow naka nga gisee activisme bu Assane Diouf moom ni muy xeexee. loolu ñun mouvement Nif Dëgg bokk nañ si njëkk a taxaw wax lool ni ko Assane Diouf ñun on dans un pays de valeur dans un pays islamique un pays de Cheikh Ahmadou Bamba de Mame El Hadj de Mame Baye ay saaga waru fi jub. may nettali benn histoire bu ndaw maam dafa am ku ñëwoon seet si ko. Mhm. ni ko dañoo dañoo dañuy constaté ni suñu xale yi léegi dañuy saaga rek il faut nga wax ak xale yi mu ànd ak ki ko wax loolu mu ànd ak moom ba ci daara ji mu wax benn ndongo mu ni ko saagaal ndongo mi ni saaga saaga saaga saaga. Mhm. mu ni ko gis nga ñii xamuñu luy saaga. kon seen seen xale yi suñuy saaga si yéen lañ ko jàngee moo tax ñu ne Assane Diouf bàyyil saaga yi saaga warul jug. ah surtout yow ci mukalaf bu toll ni yow xale yi di ko dégg di ko fowee donc loolu dafa bokk ci li yàq valeur yi fii Sénégal mm. te ñun mouvement Nittu Dëgg on la le le mouvement protecteur protectrice des valeurs kon gis nga ni gis nga ni saaga yi dafa yàq euh, xeexu Assane Diouf daf ko yàq mais Assane il a beaucoup changé il a évolué ci côté boobu mm-hmm. bi ñu koy jëlee Amérique di ko indi fii di ko tëj man boo personnellement gisuma ñu bëri ñu jóg di ko défendre parce que boobu saaga yi dafa ëppoon mais instant bii mën nañu wax ni Assane il est devenu un vrai activiste parce que il pose des actes il donne des des il communique mu ngi wax mu ngi jàppale waa goxam gis bi ñu ko jàppee maire am maireu dëkk bi maireu koñam jóg na génn di wax ne Assane il a fait ceci et cela donc Assane est devenu un patriote donc kon war nañu mën a bàyyi lële te arrestation bi ni saaga taxu ko jóg leneen moo ko tax a jóg. Mm-hmm. te lool noonu c'est de l'injustice bu ñu tegaat encore ci kaw Assane Diouf. ki di Guy Marius Sagna euh, ñuy wax ni sax euh, actuellement ñu ngi koy euh, torturer ci ci prison bi naka nga gisee Guy Marius Sagna ci boppam ak gis nañ ni ñaari fan ñett mi ngi ci kaso bi. xam nga arrestation Guy Marius Sagna boobu moo gën a nekkaat problème encore. Mm-hmm. moo gën a nekkaat connerie yu état bi defaat. ndax la parce que Guy Marius Sagna ci biir audio bi. Clédor tuddul turu Guy Marius turu Assane Diouf la tudd léegi lan moo tax ñu war a jëli Guy Marius Sagna di ko tëj ci biir ci à travers ce toujours là que état bi peut-être enquêteurs am nañ ay éléments yoo xam ne ñun amuñ ko non gis nga les enquêteurs la ils travaillent pour nous ma ne peut-être am nañ élément yoo xam ne yow xamoo ko man xawuma ko askan wi xamuñ ko waaw loolu laa la may si seen liggéey nekk il travaille pour nous ñoom lépp lu ñuy def mhm. ñun dañoo war a xam ni ñii lii ñuy def fii lañ ko teg même buñ ñu joxul dans sa globalité les informations ñu jox ñu ay ay ay indices wala quelques quelques introductions yu ñuy xamal ni ñii ñu ngi ci piste bii mais nekkuñu ci dara xam nga ci lan lañ nekk parce que Macky Sall veut emprisonner Guy Marius Sagna parce que Guy Marius Sagna lui dérange euh, la communication le message de Guy Marius Sagna lui dérange heure bu amee occasion pour arrêter ko rek daf koy def te loolu c'est très grave mais torture bi ñu koy torturer ci kaso bi nag loolu moo gën a tee grave loolu ñun xam nga Macky Sall ah day mm. ordonné rek mais du moom mooy dem di ko torturer mais ñi koy torturer ñooñu xanaa Macky est plus citoyen que xanaa Macky est plus patriote que mais lan moo tax man loolu jaaxal na ma quoi lan moo tax un président wala benn ministre wala nangam su joxee nit ordre rek. yow da koy def mais yow lan moo la leer nii Macky moo leen jox ordre. non c'est eh, Macky li ngay wax fan nga ko teg yan ah, preuve nga ci am loolu c'est très simple. Mhm. c'est si qui gouverne ce pays la ñu voteel mu falu nekk chef suprême. de l'armée nekk gardien de la constitution nekk le père de la nation kon lépp lu nekk fii ci di dox ci réew bi ci si si lay doxee mhm. parce que moom mooy le plus grand responsable de tout ce qui se passe ici que muy bonheur que muy malheur loolu c'est c'est très simple ah mais séparation des pouvoirs am na y a le pouvoir judiciaire ñuy doxal seen liggéey séparation des pouvoirs amul mais pour ma daaneel la amul non amul fii mhm. mais pour ma euh, pour ma daaneel fii ni Macky lu fi xew moom mooy responsable bi surtout su dee nit ku siiw comme Guy mari Sagna lu dal ci kawam tey balaa 30 minutes population bi jot nañ ci te population bi su ci jotee Macky Sall jot na ci donc kon Macky Sall a eu cette information là mais il veut pas réagir soit parce que c'est lui qui l'a commandité wala parce que loolu ça l'arrange que ñuy torturer Guy mari Sagna mais loolu noonu lépp dina ko layoo ak suñu borom subhanahu wa taala Seydina mhm. bi mu nekkee président Makka mhm. mais kooku quoi Macky pourquoi Macky mënul woon référé wu ci kooku am ay souci ci peuple am. Mm. ñeewantal peuple am ah ba du nelaw guddi du nelaw bëccëg ndax peuple am loolu la waroon a def. mais il est en train ce que léegi activisme sax du du du risque fii comme politiciens yi ni leen di traquer wala opposition bi ni leen di traquer noonu la ñuy euh, traquer les activistes parce que activistes yi bari nañ am na ñoo xam ni sax ñu ngi en Europe wala Amérique ainsi de suite euh, di di def seen communication ci internet bi ñu leen di déglu ñuy am euh, yeete boo xamante ni ñu ngi koy def ci ci ci askan wi est-ce que léegi sax nekk activiste du risque fii ci Sénégal bu ñu gisee kaawu Guy Marius Sagna dañ koy cité de passage activistes yi bari nañ mhm. gis nañ Abdou Karim Gueye ñaari fan ñett ñu tëj gis nañ ñoom Assane Diouf ainsi de suite bu ñu doon lim duñu fi jógee est-ce que activisme léegi du risque fii ci Sénégal jóg ne man activiste la activisme risque la risque bu mag la fii Sénégal te loolu xam mooy lan mooy bëgg sa réew risque la ci Sénégal être être patriote risque la ci Sénégal mhm. mais ñun mouvement Nittu Dëgg parce que activistes yi tamit bëri nañ mhm. te wuute nañ ku nekk ak sa forme mais ñun mouvement nit dëgg xam nañ ni lii risque la mais li ñu ci téye te li tax duñ ci bouger yotaa mhm. mooy da dafa am fu ñu jëm daf ñoo am objectif objectif bi mooy lan on veut préparer suñu ay doom suñu sët suñuy sët sëtaat yi war a ñëwaat suñu ñëwee ñu fekk fi un pays stable mhm. un pays de valeur un pays de religion comme ni ko ñoom maam Bamba ak ñoom maam El Hadj Malick defe woon ñun loolu moo ñu téye ci activisme du ñun dañ ci xaar benn retour direct bu ñëw si ñun souvent nga gis ay activistes yoo xamante ni nii dañuy teg ay jalons pour xaar ay retour pour mën a euh, am ay promotion mais ñun c'est le contraire ñun mouvement Nit Dëgg suñu principe principal mooy le désintéressement li ñuy def ñun amuñ ci intérêt personnel on le fait par patriotisme mais aussi on le fait par devoir religieuse mais aussi pour bien préparer suñu ay doom ak suñu sëriñ sinon. Mhm. suñu deful loolu suñu continué wul ci xeex bi maa ngi ciy profité sax di ñaaxaat bu baax suñu waa mouvement bi ñoom Cheikh Baye Alxuraan ñoom Cheikh Fall ñoom Cheikhul Xaadim Lo nitu dëgg yi di leen wax nañu gën a jàpp suñ ko deful dinañ mujjee poso bi ci suñu loxo mu réer te ñoom Maam Bamba ils ont fait beaucoup de sacrifices pour tey ñu ñëw dëkk ci Sénégal social Sénégal de diine Sénégal apaisé Sénégal lu ñëpp bokk ndey bokk baay am na ñu ko liggéey te ñoom Cheikhul Khadim la ñoom maam Limaamu lay ñoom Cheikh Omar Foutiyou Tall ñoom ñoo ko liggéey te instant bii nii loolu ça tend vers la disparition il faut que mu am beneen génération bu bees bu ñëw taxaw nii loolu maam yi doon xeex loolu maam yi jàngale ñun ñoo koy dëggal te du fi jógee may profité di nuyu al amin dafa ma ko mas a wax benn jour mu ñu demee benn projet imam Alioune Badara mu ne ma Seyna mar jàpp leen ndax suñu borom subhaanahu wa taala nee na jamono ju nekk dina fi wàcc ay ndaw yoo dinañ ko fi taxawal taxawal fi dëggam yi loolu je fais allusion au mouvement nitu dëgg kon gars yi nañu jàpp te xam ni bis bu ñu jàppul pour gañe pour gañe combat bi su boobaa ëllëg suñu demee fële lan la ñuy wax maam El Hadj lan la ñuy wax maam Baye Niass du ñu am lu ñu leen di wax dañuy ruus un deuxièmement suñu sët yi suñu ñëwee mais dañu naan yéen lii ñu nekk yëpp yéen ñu ko def yéen a tax ñu nekk tey ay góor jigéen yéen tax ñu nekk ay dépendant abadan yéen a tax ñu nekk ay locataire dans notre propre nation parce que Macky Sall il veut vendre le Sénégal donc il faut que mu am ay nit yu taxaw pour xeexal lool. mais yow naka nga gisee euh, c'est vrai dañuy saluer euh, mouvement activiste mais euh, dañu jékki-jékki gis ni activiste yu baree bari actuellement dañu dem ànd ak Sonko. te Sonko dafay politique il a des ambitions politiques présidentielles euh, ku si mel ni Guy Marius Sagna nekk activiste parce que bu ñu nee activiste normalement waroo far ci benn parti politique da nga war a jóg rek pour askan wi xeex injustice mais su ñu gisee activistes yu baree bari euh, ñoom Guy Marius Sagna ñoom Abdou Karim Gueye ñu bëri. dañu rangé wu ci Sonko wala sax di soutenir euh, le projet de Sonko yow bokk nga ci ñi soutenir activistes yi soutenir le projet de Sonko waaw wala déet tamit naka nga gisee activistes yooyu di ànd ak Sonko est-ce que ça colle waaw ñun nitu dëgg Sonko demandé na notre collaboration à deux reprises bi muy njëkk dem élection législative mm même aussi bi muy demaat élection présidentielle mais ñun dafa am ci ay principes yu ñu toog yu basique mhm. ñu ni philosophie ñun bi ñuy dégager yombul nga jël ko rek gis benn nit rek jox ko nit kooku noonu philosophie bi yëpp nga retrouver ko ci nit kooku à cent pour cent mhm. rawatina nag nit kooku su fekkee ni il est un politicien c'est très dangereux et c'est très risqué mhm. ba pare ñu xam ni au Sénégal il y a des milliers et des milliers de personnes qui croient en nous mhm. yoo xam ni gëm nañ ni valeurs yi ñuy défendre c'est le bon kàddu yi ñuy tenir mooy bu baax bi kon waruñu def faux pas ba salfaañee ko ba dugal ko si loo xamante ni moo koy këpp après le peuple va encore perdre espoir. Mm-hmm. léegi man dama gëm ne activiste un activiste comprendre ñun suñu mouvement nous nous appelons mouvement nitu dëgg. Mm-hmm. dëgg rek la ñuy féetal dëgg rek la ñuy àndal te soo xoolee terrain politique bi ni mu bindoo mooy ki nga àndal ki nekk sa leader qu'il pleuve ou qu'il neige kooku nga àndal su defee lu baax moom nga àndal su defee lu baaxul moom nga àndal. te ñun mënuñoo dox si loolu ñun suñu suñuy waajur sax suñu defee loo xam ni waruñ ko def dañu leen koy wax parce que loolu maam Baye Niass jàngale na ko Cheikh Fall Serigne Cheikh Fall moo ma ko jàngal. Hmm. maam Abdoulaye Sy jàngale na ko nee na su may jëloon yatu dëgg tourné yam ci maam élagement ak dama ko koy dóor. rawatina nag suñu duggoon ci politique. Hmm. ah am benn leader boo xam ne nii les leaders politiques ne sont pas parfaits ils font souvent des erreurs mais ñi bokk ci parti bi duñ nangoo wax erreur yooyu noonu. te ñun mouvement Nittu Dëgg xajoowuñu ak loolu. looloo tax Sonko demandé leen ngeen bañ. waaw loolu bokk na si amoon na ay ay ay waxtaan parce que ñun nit soo bëggee ànd ak ñun. Mm-hmm. dañu lay wax ñëwal. soo ñëwee toog ñu déglu la ñu pose lay questions comme on l'avait fait avec Tunkara. Mm-hmm. mu ñëw a trois reprises ñu toog waxtaan on lui a posé des questions réponses doyuñu ñu ni ko demal munuñu ànd ak yow. Mm-hmm. mooy bi mu bëggee nekk député. c'est comme ça qu'on léegi pour wax ni. kon lan moo tax munoo leen ànd ak Sonko. parce que li lan la lu ma la wax ni doyu leen. non non non non ñun suñu xasee dugg foofu rek ñun sax dañ leen di yàqal xam nga lu tax. Mhm. parce que ñun du ñu nangoo adhéré ci ñoom ni ñuy doxalee que mu neex wala mu naqari lu lu lu lu leader bi wax da nga koy soutenir. Mhm. lu mu wax da nga koy tàccu su defee erreur nga rafetal erreur yi te rafetal erreur yooyu noonu àndul ak dëgg te ñun si dëgg la ñu toog moo tax ñu ni mouvement Nittu Dëgg nañu continuer ci suñu mission bi amuñu lu ñuy daw. amuñu lu ñuy yàkkamti yaakamti ñoo soutenir nit pour mu nekk ci pouvoir bi ñëw may ñu ay cinq cent mille ak ay un million nangam on n'a pas besoin de ça on est dans le désintéressement moo tax ñu ni ñu ngi continuer rek ku bëgg ànd ak ñun suñ dinañ la poser suñuy question dinga tontu soo tontoo ci tontu yooyu la ñuy la ñuy kii mais gëm naa ni du yomb de pour nga gis mouvement nitu dëgg bii mu nitu dëgg mm. original authentique dem di soutenir euh, un politicien non du yomb de mais dans le nitu dëgg il y des membres Il y a des membres qui soutiennent Sonko, il y a des membres qui soutiennent Idriss Seck et cetera et cetera mais l'instance l'institution nitu dëgg. mouvement bi ci boppam waaw non beneen affaire la. Euh, ñu laaj la Oumar Sarr naka nga gisee coow euh, coow bi nga xamante ni moo nekk ci réew mi euh, c'est vrai que actuellement sax dal am na mais foog ñu ñëw ci di affaire Sonko ak Adji Sarr yow mbir mi ban jàng nga ci am da nga jàpp ni. complot politique la wala exactement lan la ban jàngat nga am ci euh, conflit bi am ci diggante Adji Sarr Sonko ak tournure bi mu jël. waaw loolu analyse bi ñu def yëpp nitu dëgg yi xam nañ ni lii complot la parce que ñun ay borom xel lañ. complot ngeen ko jàpp. complot lañ ko jàpp foo ko teg. fi ma ko teg mooy fi Macky Sall commencé depuis bi mu faloo mu ni je réduire la l'opposition à sa plus simple expression. Mhm. tëj Karim Wade tëj Khalifa Sall. noot ñoom Ousmane Ngom ñëw na noot na Idrissa Seck noot na ñoom Omar Sarr noot na ñëpp léegi Sonko moo ko tere woon a nelaw mhm. il fallait que muut wut fu mu ko jaar xool na fii xool na fee xool na fële parce que Sonko neexul a jàpp xam lu tax mhm. parce qu'il n'a pas géré mhm. nekkagul ci nguur gi donc kon pour auditionner ko wala pour am ci loo ko jàpp du yomb léegi kon affaire u mërs rek foofu lañ mën a war a mën a jéem a jafandu léegi nag affaire bi mu doxee ñu gis ni Adji Sarr bi ko jiiñ mhm. Adji Sarr bi jiiñ Sonko ni ko yaa ma violé mais Adji Sarr kenn mënu ko teg bët xanaa la si on dit que la justice est rendue au nom du peuple. mais est-ce que tamit nekkul dañuy protéger Adji Sarr parce que mais elle est gis nga menaces si saaga yi li ñu koy wax yëpp est-ce que euh, mu jóg ñu xam fu Adji Sarr nekk est-ce que du ñu exposé xale bu jigéen bi. loolu c'est important est-ce que ko protéger. loolu c'est très important Adji Sarr mën nañ ko protéger mais muy communiquer ak population bi. Mhm. parce que le peuple est souverain te la justice est rendue au nom mhm. léegi affaire bi dem na ba nara indi coow. Mhm. dem na ba nar indi coow nit ñaa ngi jóg ñi naan lii ñi naan lee ñi naan damay sànni xeer ñi naan lii. ñoo xam ne affaire bi nar nag su fekkoon ni justice bi su fekkoon ni procureur bi procureur bu responsable la dina woo aji Sarr mu toog. mu defal ko interview par exemple ak benn télé mu jàkkaarloo wax ak sénégalais yi wala ñu sélectionner quelque parmi les la société civile ñu ñëw toog ak Adji Sarr dans un lieu privé ñu waxtaan ba sénégalais yi xam qu'est-ce qui se passe exactement balaa lii di taal réew mi loolu mënoon nañ ko anticiper xam ñu nous avons un état très irresponsable xam nga fan la njëkk a njëkkee irresponsable mooy bi ñu njëkkee yónnee Sonko convocation Sonko ni leen je vais pas déférer parce que je suis député, mhm. mais ñoom dañoo il devrait se rectifier avant que gars yi dem kër Sonko mais ils ne l'ont pas fait ils ont créé des émeutes là-bas kër Sonko loolu tooñ ah, la mais nee nañ demuñ woon pour jëli Sonko non loolu ñoo fa dem indi fa ay ay kenn xamul gëmuma loolu loolu nee nañ jour demuñ woon pour jëli Sonko te Sonko nee na dindi leen sama immunité parlementaire su ngeen ko dindee 9 heures 10 heures ma wuy ji ñu def loolu Sonko war a wuy ji nekk ne du wuy ji non Sonko wuyu alors que sénégalais la comme sénégalais yi mais nañ revenir foofu noonu loolu xam nga ñoom dañoo am lu ñuy tuddee mensonge d'état mooy maanaam fen-fen bi ba mu rafet ba xam looy wax ak population bi te loolu moo war a jóge ci politique ñun xam nañ ni ñoom demuñ woon dañoo demoon pour jëli Sonko booy Sonko yi ñëw taxaw ni fii Sonko du fi jóge parce que il a l'immunité parlementaire donc état bi dafa def foofu faute mais état bi ñu demee ba ci biir ba état bi xam ni population bi dafa nar a jóg dafa nar a jóg xeex mënoon na rectifier wu il avait plus plusieurs options pour rectifier wu. Mhm. pour que population bi du ñu jóg. mais ils ne l'ont pas fait. toog nañ seetaan ba dix ba onze personnes. mais mais est-ce que loolu nekk responsabilité Sonko. non non non Sonko. parce que xam nga bu fekkee Sonko parce que sànq yaa ngi koy wax euh, malgré peut-être euh, casquette yi wala chapeau député wala président wala DG ainsi de suite. ñëpp ay être humain lañ ku nekk soo amee jafe-jafe euh, war nga mën a dem si yoon yoon lijjanti ko est-ce que tamit Sonko fiirul responsabilité wala mu jël affaire politique teg ko pour protéger côté mœurs boobu parce que au lieu que accuser nañ ko viol euh, ñu convoqué ko est-ce que ce te pas plus responsable Sonko dem wuy ji seetal deram comme ni mu ko war a defee dans les règles de l'art bu fekkente ni moom respecté na les institutions au lieu que muy jël affaire bi rek def ko euh, complot politique carrément jël mbir mi yëpp teg ko ci ndoddu Macky Sall ci benn côté mais est-ce que ci beneen côté Sonko warul woon a dem wuy ji comme un bon citoyen au lieu que mu fi indi émeute ba ñu enregistré treize morts ci ay question de massage gis nga est-ce tamit Sonko sa est-ce que am na euh, réaction bu bu responsable. par rapport bu responsable def ci mbir mi ba mu jeex tàkk xam lu tax. ne wuy jël nga bañ. ok parce que ci loi la ko teg immunité parlementaire moo ko permettre warul wuy yi mu teg ko ci loi toog jàpp ñaamburam bi ñu demee ba dindi immunité parlementaire bi ñu yónnee ko convocation moom mu gis ni même procédure bi dañ ko violé. mu ne du dem mu ni duma dem. Mm-hmm. te tegaat na ko ci dëgg. Mm-hmm. mais beneen dëgg bi ma ci gën a neex kilifaam moo ni ko noo demal garaawul. mu dem kon Sonko dafa respecté loi ba pare respecté waat kilifteef te Sénégal mooy réew boo xam ne nii kilifteef moo koy yor ci kilifteef lay tegu ba abadan Macky Sall nag ñàkk kilifteef moo ko indil euh, coono yi yëpp mu nekkee léegi Sonko bi muy dem tamit ci loi la ko tegaat ñu ni ko jaaral corniche parce que foofu bëggoon nañ ko fa tendre benn embuscade am ay nervi yu taxaw foofu di ko xaar pour su ah ñëwee ñu ah bien sûr gis nañ ko ci vidéo yi mais loolu est-ce que est-ce que tamit li ngeen di wax c'est raisonnable loolu vidéo yi ñoo ko wane ñu naan dañuy bu fekkee gendarme yi dañ ne ko jaaral fii c'est pour ah. faciliter ko yoon bi mu jaar dem wuy ji carrément mais Sonko xool yoon ba gën a jafe gën a xat gën a compliqué ah. mu ne fa lay jaar parce que si convocation bi amul itinéraire heure lañ ko wax heure. waa telle heure na la fekk. Euh, palais de justice mais heure ba ko fa. parce que ñoom ñoo ko bloqué. parce que ñoom ñoo ko bloqué bëggoon ko imposer ni ko doo jaar fii fële ngay jaar mu ni leen la loi me permet de passer là où je veux pour aller aller au au au, au palais de justice ci loi la tënku donc kon suñu gendarme yi ñoom ñoo defaat foofu beneen erreur ci ci ordre procureur ak ordre préfet un préfet un préfet buy ñëw taxaw ni lancer des lacrymogènes même les journalistes quitte à à ce qu'il rentre chez eux est-ce que c'est un préfet responsable ñun nous sommes dirigés par des gars très très irresponsables Sonko nag man moom ci cas bi nii nii nii nii nii hmm. man lenn kese kese kese laa ko si duute woon baaraam moy hmm. ni warul woon dem ca kër googu noon di maase wu mais à part loolu à part loolu li mu def yépp ci yoon la ko teg ci dëgg la ko teg état bi kay moo nekk di continuer di def ay conneries di def ay njuglam di def ay violation de la constitution violation de la loi. Mhm. te loolu lépp dina dina dalaat seen kaw. mais mais naka nga gisee capitaine Touré mi te loxoom euh, euh, ne mu nekkoon ci biir enquête bi également. c'est que nga gis manipulation yi bari na dem na ba ñenn ñi sax naan xel mi neexul ainsi de suite moom tamit mu daal di dëggalaat complot boobu nga xamante ne ñu bari ci askan wi moom la ñu gëm. gis nga considérons qu'il y a des milliers de capitaines Touré dans les corps armés ay ay ñu bëri ñoo xam ne nii ils sont frustrés euh, capitaine Dièye démissionné na fi mhm. juge Dème démissionné na fi juge Téliko démissionné na fi ak ñeneen ak ñeneen yu ñu xamul man wax naa ak benn benn gendarme mu ni ma lii démissionné ci ay gendarme du jeex man même mouvement nit dëgg am na benn gendarme démissionnaire bu fi bokk actuellement mu ngi États-Unis mhm. bi mu yàgg na te fii la nekkoon caserne Samba Diéry Diallo foofu la parce que injustice il me l'a dit may déglu su ma dégluwul dina ma déglu ci whatsapp dina ma dégg ci whatsapp bi mu ni parce que xoolal man li may gis nii nii c'est de l'injustice ma bàyyi dem Amérique toogi foofu noonu donc il faut que ñu xool benn affaire ni mooy solution bi xam mooy lan mooy désobéissance désobéissance nañu bind ci miir yëpp désobéissance parce que désobéissance rek moo ñuy indiwaat ci ordre dafa dañoo Sénégal dañoo toll foo xamante ni il faut qu'on casse tout pour revenir à zéro mm-hmm. defaraat jikko yi defaraat institution yi defaraat dëkk bi defaraat loi yi defaraat lépp il faut qu'on reprend à zéro te mën nañ ko te suñu reprendre à zéro on peut se vite fait parce que on est police gendarme magistrature armée ñëpp dafa am ay gars yu corrompus dafa am ay gars yoo xam ne ils sont frustrés parce que bëgguñu gis injustice devant eux te ils n'ont pas le droit de parler. mooy kaawu capitaine Touré. mooy kaawu capitaine de Touré moo tax ma la il y a milliers de capitaine Touré mais commissaire Keita lan moo ko tax ñu dàq ko parce que il di dit que au sein de la police la drogue mu ngi circuler. Mm-hmm. te loolu moo wax dëggam la au ñu woo ko enquête ko. pour xool kan kan mooy dugal drogue bi ci biir polis bi pour ñu jàppaleen leen tëj leen ñu dàq ko. ñu sanctionné ko loolu mooy réew bu buggul bu buggul lu leer réew bu buggul euh, euh, lu lu loo xamante ni nii day transparent suñu réew bi bugguñu loolu rawatina Macky Sall ak ñi mu àndal Macky Sall bañ na ko ba ku am xam-xam buggu la ku ku ku jub ku jub buggu la ku transparent kuy def ay conneries rek la bëgg ay ñoom ab du Mbow ay ñoom yaa xam mbay ay ñoom Mahmoud Saleh ay. ñoo xamante ni nii doo dégg si ñoom lu baax ñoo ñu lay jox def defal leen promotion pour ñoom ñu koy ñu koy doo defal ay saal buloom mais ñun on est mal barré. mais naka gisee ci ci ci émeute bi. Euh, sénégalais yi euh, parce que doy na waar li fi am en tout cas man bu ma juddoo ba léegi maa ngi doo gis lu mel ni am Sénégal euh, ci loo xamante ni mi ngi juddoo ci affaire massage yaa ma violé violé wu ma de suite affaire bi jël tournure politique ndaw yi génn fippu ne dañuy xeexal démocratie ba am bakkeen yu si rot ñu ngi mastawu Sénégal yëpp di mastawu famille wu victime yi parce que c'est très dur ay ndaw kese kese ñoo ci faatu ay treize treize personnes ñoo xam ne dix huit ans dix sept ans vingt cinq ans ainsi de suite euh, ñu ñàkk seen bakkan parce que nee nañ dañu jóg pour xeex. Euh, pour démocratie bi mais gis nga ni ci xeex boobu ñu ngi doon attaquer les euh, entreprises entre guillemets françaises euh, lu si demee ni ki Total nga gis ni station Total yi nekk pratiquement à Dakar yëpp saccagé nañ ko nga gis lu si demee ni ki Auchan pratiquement Auchan bii suñu wet sax fii ci Castor gis nga dafa fermé depuis loolu dañu ko roñ ba mu set wecc comme Auchan yu bëree bëri ban jàngat nga ci am est-ce que c'est c'était responsable c'est vrai ñu jóg fippu yëngal yëngu ñu xam ne kii nañ taal pëna mais est-ce que euh, acte bu ñu def c'est responsable ñuy attaquer ay entreprise parce que entre guillemets nee nañ Euh, c'est des filiales françaises mm-hmm. muy Total muy Auchan ainsi de suite ban jàngat nga ci am te ña fay liggéey euh, pratiquement le personnel moom personnel bi ay ay ay sénégalais kese ngay fekk Auchan ñoom ngay fekk euh, Total inci de suite. gis nga loolu li ko waral. c'est mm -hmm. très simple mooy sës sës nit ku sës. Macky Sall da lay puus di la puus Macky Sall dafa puus peuple bi ba ba peuple bi sës peuple bi mu sësee nag day tourné jàkkaarloog moom dal ci kawam peuple bi dafa craqué maa ngi ko doon benn jour may nit ko craqué nit ko am dafa sës mën na jàkkaarloog papaam sax saaga ko ndey waxuma laak un président boo xam ne ni yow yaa ko fal jox ko pouvoir yi mu yor yëpp. Mhm. peuple bi foofu la ñu tolloon nga sës bi li ko waral dafa bëri bi si jiitu mooy mal gouvernance bi ñu gis depuis l' arrivée de Macky Sall jusqu' aujourd'hui mal gouvernance mën naa la si jox ñaari indice yu ndaw ci mal gouvernance mooy Macky Sall taxaw na mu ni bu fi kenn jëndati oto parce que li ngeen di dépenser si njëndum oto yéen ministère yi dafa bëri te terewul gars yi ñuy continuer di jënd oto faale wu ko kon il gouverne mal le pays parce que il ne maîtrise même pas beneen bi gis nañ Macky mu taxaw télé ñu koy poser question mu ni ñu ni ko licence de pêche yi mu ni pourtant licence de pêche yi sax liñ ko jaayee mënoon na ëpp parce que loolu dafa xaw tuuti kon loolu mooy wane ni moom du moom mooy gouverner du moom moo jaay licence de pêche ñeneen ñoo ko jaay ñu fi nekkul loolu mooy mal gouvernance mais loolu bi dañ ko xam dem ba sonn si lool craqué ci loolu noonu loolu un la inégalité sociale bi ñu gis ci dëkk bi da ngay nekk ci dëkk bi juddoo fi màggee fi yaroo fi jàng di liggéey sa beneen moroom xamul dara dem ni defi day defi politique dem nekk suq Macky Sall wala suq Omar Youm wala suq Diouf Sarr wala suq keneen ak keneen ak keneen mais kooku day ñëw nekk un de devant toi di dawal 4 x loolu mooy inégalité sociale boo xamante ni si injustice lañ ko teg loolu population bi dañ cee sonn moo tax ñu craqué moo waral lii nii beneen bi couverture juridique da ngay gis ko bokk parti APR wala nga bokk bennoo bokk jaaxa yaakaar lépp bennoo bokk tas yaakaar lépp loo def ci ay conneries ci réew bi muy injustice muy tooñ muy jël alalu jàmbur lépp loo mën a def mais da ngay am couverture juridique. Mhm. Macky def daf lay couvrir du mujjee fenn. Mhm. gis nañ fi Bougazeli gis nañ fi euh, leneen ak leen ay nit yu bëri yoo xamante ni def nañ fi ay conneries mais du mujj fenn dañ leen di couvrir. gis nañ fi loolu bokk na si li craquer aux population bi nañ fi élimination des opposants Macky Sall kuy opposant da lay éliminer éliminer bi soit mu defal la élimination directe wala élimination indirecte directe bi mooy bi mu bëggoon a def euh, kii euh, Ousmane Sonko moom la def Khalifa Sall ak ak ak Karim Wade indirecte bi moom la def Omar Sarr moom la def Idrissa Seck et cetera et cetera loolu sénégalais yi dañ cee sonn ñu craqué xam nga loolu dañ ko yàgg di daas fanaanal beneen bi mooy la politique des anti-valeurs de Macky Sall loolu tamit dafa ñu craqué loo daf ñu craqué loo ay SNEC SNEC stratégie national pour l'équité et l'égalité des genres en deux mille trente cinq xam nga loolu mooy lan mooy Macky Sall teg na benn politique boo xamante ni gars yi rédiger nañ ci ay ay ay livres pour xool nan la ñuy naxante ak population bi pour d'ici deux mille trente cinq ñu daganal góor jigéen loolu population bi yëg nañ ko te loolu da leen di beneen bi mooy daara ji mm-hmm. Macky Sall ni muy xeexee daara ji loolu bokk na ci li craqueloo nit ñi nit ñi dañoo boole yooyu yépp nag mm-hmm. yooyu yëpp lañu boole di toroxal sëriñ daara yi wax ne ñun suñu sëriñ si sont des citoyens ordinaires faalewul kenn gars yi boole lépp nag affaire Ousmane Sonko bi ñëw ñu ñëw ñu ñëw sës ko ko ñu ñëw ni ko ko buum kon du affaire Sonko bi ci boppam noo même Sonko wax na ko nee na affaire bi léegi dépassé na loolu dépassé na affaire Sonko bi parce que gars yi liñ ko meraloon yëpp lañ ko indil xëppu ko ko te gis nga Macky Sall su fekkoon moom nekk na un homme d'honneur un homme diñ mm. day démissionné parce que day xam ni réew bii ma jiite bëggatuñu ma bëgguñu ma da da ngay démissionner dem toogi France wala États-Unis ci say ñoom nijaay foofu noonu loolu la waroon def moom gouvernement bi yëpp ñoo waroon dem parce que le peuple ne veut plus de lui léegi beneen bi mooy euh, ce ministre de l'intérieur là Antoine Félix Diome may wax mu naan il parle de terrorisme mm-hmm. honte à lui en tant que ce peuple mm-hmm. ngay jéem a jaxase sa peuple ah ak ñeneen ñi dafa bëggoon jaxase peuple sénégalais bi ak ak ak ay France ak États-Unis ñiy xeex contre terrorisme mais aussi dañoo bëggoon a sang seen der mais est-ce que du une manière de parler parce que fekk ay entreprise jàmm nga toj ko jël la fa nekk euh, loolu mun nañ ko jàppee banditisme wala du terrorisme parce que moo bi am na ay que maanaam boo nekkee sa jabar ci kër sa am na nooy euh, dundeek moom dañ naan kii dafa terroriser jabar ji peut-être Antoine si côté boobu la doon waxee. non beneen manière bi xam reste à voir. d' accord dañoo bëggoon a. parce que yóbbu ngeen sénégalais yi euh, yu bëri chômage actuellement. xoolal setal seen der yokk ci li fi amoon. setal mhm. moo taxoon Antoine Félix di wax terrorisme. Mhm. parce que su nee terrorisme rek ah euh, kon waxul peuple am au lieu mu ni sama peuple. ñoom ñoo révolté woo. Mhm. te peuple bi su révolté woo qui est la faute. la faute à qui nag tout révolution boobu lañ doon bañ il fallait que ñu jëli emprunté benn tur ñun on est très ñoom ils ne sont pas. révolution la mu bañ a wax révolution parce que révolution foo ko fekk gouvernement ba dafa war a dem dañoo war a démissionner on ne veut plus de lui c'est ça qui existe réellement mooy il a de terrorisme pour wax ñële ni ah beneen ay yeneen force occulte xaw ma lan ñoom ñoo ñëw dal ci suñu kaw nation alors que c'est mhm. faux. Malick Sall ne moom lutteurs yi ñoo ko andi. Euh, <laughs> sur euh, France 24 maître Malick Sall. waaw la justice. Euh, il a loolu moo lay wan ne ñoom xamuñu sax fu ñuy taxaw ñoom sax. ils ont une un gouvernement mal organisé xamuñu sax fu ñuy taxaw da ngay génn gis kenn génn ci télé bi wax lii keneen génn ci télé bi wax lële ils sont tergiversés en fait ñoom dañoo war a d'accord ni ñoom ils son incompétents de gérer ce pays ñu bàyyi gis nga loolu mooy noblesse quoi Mm. noblesse mooy nga reconnaître ça am nañ droit doxal ba seen mandat jeex ñu organiser élection pour la stabilité du pays non je suis pas d'accord ndey non dañu nekk si réewu démocratie waruñ jalgati lool waruñ waruñ yàq suñu stabilité tamit mais suñu au moins Macky Sall am na droit toog fi ba 2024 avec son gouvernement am na droit bi mais dama ni la noblesse noblesse mooy ñu jox la benn affaire ñi la jox la oto bi ni la oto bi dawal ko. Mhm. ñun ñoo ngi ci ginnaaw oto bi dawalal oto bi yóbbu ko Ziguinchor. Mhm. ah yow avant ngay egg jam ñaajo rek yaa ngi def ay tergiversé nga xam ni mënoo dem noblesse mooy nga wàcc ni beneen chauffeur na ñëw dawal. Mhm. loolu mooy noblesse. Macky Sall loolu mooy nobles moom xam na ni mënul yóbbu réew bi fi mu jëm mais na wàcc réew bi bàyyi ñëw suñu réew ñun ñu indi quelqu'un de compétent mu doxal réew bi quelqu'un comme Ousmane Sonko il est bien parti. ñu jox ko réew mi mu doxal. ah il est bien organiser ay élections anticipées c'est possible. il est pour pour le moment. non non toogee ci nguur gi dana dana wax lay. non nit ñi am nañ ci moom yaakaar. parce que moom Macky Sall yi dañoo amoon ci moom yaakaar tax ñu faloon ko mu tas yaakaar léegi ñii am nañ ci kii yaakaar mais nañ ko fal rek mais moom na bàyyi na organiser ay élections anticipées keneen ñëw. mu doxal réew bi loolu mooy noblesse après moom mu dem mais beneen côté bi lan moo tax nanguwul bàyyi. Mm. parce que France du ko nangu. Mm. parce que Macky Sall est un bon gouverneur de la France ici au Sénégal il représente bien Macron il défend bien les intérêts de Macron mais intérêt France yi moo tax Macky Sall jëli. armée bi Casamance ak fu ne. Mm. ñëw indi leen pour ñu défendre les intérêts de la France Total ak ak Auchan. ak Auchan yi ñu te pourtant il n'a pas décrété un état de siège. kon il a encore violé là-bas la constitution Macky Sall li muy def yëpp xam nañ ko léegi su fekkee ni li ñuy wax Casamance dëgg la que foofu dafa am guerre ah ñu abandonné guerre boobu noonu ak nit ña fa war a dee ak risque ya fa am yëpp pour ñëw défendre ici les intérêts de la France militaires yi ñëw kooku c'est un président responsable c'est un président très irresponsable te ñun dinañ kon ne ñun nitu dëgg dinañ ko ne di ko traquer duñu ko may dara ba mu wàcc suñu réew mi xam nga lu parce que moomul réew mi réew mi ñun dañ ci am ah, wàll am na droit tamit toog fi ba deux mille vingt quatre. moo leen benn droit ne ko wàccal. dañu koy wax ni ko yow sa noblesse su fekkee ni tu es un noble tu es digne da war a bàyyi parce que buggatuñ la à la tête de ce pays parce que tu es incapable nga yóbbu réew bi fi ñu ko bëgg nga yóbbu ko. loolu lañ ko wax naka gisee déclaration bu Ousmane Sonko après bi ñu ko placé euh, sous contrôle judiciaire maanaam ba léegi mi ngi ci loxol yoon à tout moment war na mën a dem wuy ji ci affaire bi dox ci digganteeg moom ak Adji nga gis déclaration voilà Sonko li mu wax bari na en sax nee na moom dafay euh, yóbbu Macky Sall wala ci cour pénale internationale parce que ñi jot euh, ñàkk seen bakkan ci ci émeute bi ci révolution bi entre guillemets comme ni ngeen koy waxee mm-hmm. euh, est-ce que euh, jàppoo ni tamit Sonko foofu dafay daw responsabilité parce que moom moo toog ci télé ñëpp di ko seetaan mu woo ndaw yi ci fippu woo ndaw yi ci jóg ne l'heure est la mobilisation nañ jóg taxaw pour sa libération pour parce moom bi mu génnee sax nee tey Euh, bu fekkee ndaw yi defuñ woon nii kon heure bi maa nga rëbës jàllale nañ ma rëbës bu yàgg kon fippu ndaw yi moo tax ñu bàyyi Ousmane Sonko ñibbi këram kon est-ce que moom tamit du responsable comme ni muy waxee ni président Sall responsable la ci treize yi nga xamante ni am na ci ñetti fan wala ñeenti fanu entre guillemets révolution bi am fii ci Sénégal. gis nga li mu wax. Mhm. <clears throat> da koo teg si dëgg xam tax. Mhm. gis nga suñu la bëggee noot su la neexee nga séddee. su la neexee nga bañ a seede mu ngi mel ni agresseur bu ñëw rek fekk la nga yor sa téléphone mu bugg jël su la neexee nga xeex ak moom su la neexee nga bàyyi ko ak téléphone. si mhm. c'est simple ah. léegi Macky sàll dafa bëggoon ñëw pour agresser Ousmane Sonko. pour mhm. tooñ ko. Sonko bañ xeex. xeex bi mooy lan mooy dew ma taxaw ni dew ma. léegi ñeneen ñi ñëwoon sénégalais yi ñëwoon ñëpp mobilisé wu mhm. non du sonko moo leen woode mhm. bëgg bi ñu bëgg sonko ak bëgg bi ñu bëgg a sonko ak démocratie ak craqué bi sonko moo leen woo moo toog ci télé woo leen ne leen dañ maa ni ñu ni ñu def xalifa Sall ah. def ko Karim Wade ah. réduire opposition bi ah. man maa ci des noonu lañ ma bëgg a def te léegi nag faaw ngeen jóg fippu ah il a donné il kon kay li ndaw yi def. Hmm? c'est parce que ci Sonko la ñu ko dégg ci Sonko moom moo leen ci poussé. Hmm? Hmm? tamit Oumar Sarr non di ko seetaan. li mu wax dafa leer naañ ngi fii. sur le plan politique. waaw sur le plan politique. ndaw yi bu ñu jógee. waaw Sonko kàddoom. Mhm. loolu ci la bokk. xoolal sur le plan politique. waaw man nga ni Sonko moo woo ses militants. waaw mais soo génnee sur le plan politique nga sur le plan rationnel nga ni sur le plan rationnel. Mhm. Sonko woowul kenn dafa wax problème am. léegi ñi mu intéressé problème bi ñi mu intéressé ñoom ñoo ñëw jàppale ko loolu kese la c'est simple loolu Sonko amul lenn luñ ko ci mën a luñ ko ci mën a duutee baaraam parce que ñi jóg non non xoolal moom moom fipp moom fipp boppam la wax dañuy du ma dem du ma dem ba pare woo ci ñu ànd ak non ñi bëgg ko bëgg ñëw protéger ñoo ñëw protéger ko ñoo ñëw wàcc nag waaw ñoom léegi nag Macky Sall xam nga ban erreur la def moom bi mu xamee ni moo jiite réew bi moom moo jiite peuple bi nar a ñëw di di protéger Sonko te moom mu bëggoon a protéger peuple bi mais mënoon na xool nu muy def mu jaarale affaire bi si yoon mais Macky Sall moo sacrifié population bi ñooñu dee yàlla na leen yàlla xaare aljana ci barke Seydina Mohamed mais Macky Sall moo leen sacrifié. wala moo leen sacrifié. pour sa liberté déedéet ñooñu. d'une manière bénévole xoolal d'une manière bénévole natt na fi ndaw yi tollu ci moom. mais mu mu mu poussé ndaw yi ñu génn. pour moom liberté pour loolu c'est de la peur mais d'une manière bénévole nee naa la li tax a jóg nit ñi Sonko benn élément la si siteel naa la ko fii. ok la politique benn élément kese la si. am na si ñoo xam ni xamuñu sax Sonko te dañoo jóg ils se sont révoltés parce que dañu tolloon ci jamono joo xam ni réew bi dafa soxla woon révolution wax naa ko benn jour ci benn télé. Mhm. ma ni leen état bii nii ñu ngi leen di woo ci révolution pacifique. wax nañ ba sonn suñu moytuwul ci révolution physique la ñuy mujjee. bi ma ko waxee léegi y' environ trois mois de cela parce que réew mi moo tolloon si il fallait que ñu jóg parce que ñoom nanguwuñ ñoon dégg ba pare Macky Sall moo ko déclenché waat. à travers 31 décembre bi passé dafa taxaw mu ni man je vois pas la couleur rouge. gisatuma ko waaw maanaam loolu mooy ni seen manifestation yi ngay di def nii man faale wu ma ko. ah mais ba am loolu maître Wade. waaw léegi nag ku am lu la naqari. takkal morceau bu xonq. mais moom tamit il a plein droit mu ne moom loolu concerné wu ko parce que il n'est pas le président Abdoulaye Wade. non couleur rouge ngeen démocrate un un peu. di xeex démocratie indi dictature. xoolal couleur rouge boobu mu wax benn next level la rek dafa bëggoon xamal population bi ni leen. manifestation yi faalewuma ko léegi nag war nañ ko manifestation boo xam ne nii faale na ko yëngal na ko après mu après mu def discours daan ne ndaw yi xam na ne ndawu réew mi parce que ñoo ñoo jógoon. ñi ci ah. ñi ci ñi ci décédé rek da koy firndeel. Ah. treize personnes. Ah. entre dix huit ans vingt cinq ans. ñoom ñëpp ay xale lañ. ay xale lu góor day wane ni. Mm-hmm. Euh, ndawu Sénégal dañu jaaxle. nga mm. gis ni bi mu defee discours. Mm-hmm. Euh, ci discours am. gis mm-hmm. nga ni message bi jàll na. parce que dégg nga li mu wax ne dina gën a taxawu ndaw yi. Euh, dinaa gën a teg ay programme pour jàppale ndaw yi ñu génn ci jafe-jafe yi. mën a am liggéey mën a jàppale seen bopp. jàppale seen famille gisee déclaration bu Macky Sall est-ce que nekkul lu trop tard parce que ñu bëri nee nañ ko dem ba sa mandat lu ah. trois ans ah. nga naan danaa jàppale ndaw yi ah. euh, euh, neuf euh, defoon pour pour les jeunes waaw loolu reconnaissance di défaite la rek mhm. défaite am le reconnaître foofu te pourtant mënoon na ko wax sax mënoon na ko wax mënoon wax ni mënoon na taxaw wax mu ni j'ai échoué cher peuple mhm. j'ai échoué parce li mu wax yëpp loolu mooy résumé bi mhm. il a échoué parce que Macky su population bi kàddu bu rafet. Mhm. fii la taxaw mu ni ñun nous sommes des fainéants. mu ni le peuple sénégalais sont des fainéants. Mhm. mu taxawaat euh, ñi taxaw di wax ci télé mu ni ñooñu ah ay ay kii lañ ay ay ñu amul liggéey la ñoo xam ne dañuy wër di wax rek baa leen foofu ñuy wax rek. fii la taxawaat ci kanam tubaab bi mu ni leen ñun on est un peuple de de misère on est un peuple de guerre on maladi mhm. kon tubaab bu am courage pour ñëw fii bëgg fi dara dañ laa war a jox gratuitement mais ay saaga saaga yooyu yëpp. maanaam musul wax wax bu neex jëm ci peuple bi kon su demee keroog muy wax di apaiser. di apaiser waaw dégg nga kilifa diine yi. dégg nga sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ maa Niass li mu wax. Mhm. mu ni ñun kilifa diine yi ñu ngi wax mais ki ñuy waxal moo dëgër bopp. loolu mooy ki ñuy waxal faale wuñu sëñ Mountakha de nee nañ délégation bi Macky Sall yónni woon après émeute yi daf leen a rejeté. loolu mooy kii nii mënatumaa ci moom dara parce que faale wu ma jàppee wu ma kilifa. donc kon Macky Sall su demee tey ba teg discours bi di apaiser di wax di neexal kilifa diine yi di wax di wax di neexal politique peuple bi loolu mooy ni wane na ni il a échoué te échec nag li ci waroon a topp rek. su fekkee mooy démission. yéen daal na tekki ndoom non daf ko waroon a def wala organiser ñu élection anticipée parce que trois ans de plus. Mhm. ñu war a dund trois ans de plus ci médiocrité loolu dafa métti ci peuple pour ci pour trois ans rek réew bi war na ci mën a développer avancer. mais trois ans la ñu war a dundaat mais au moins élection yi jot ñu organiser ko problème bi loolu la projet d'un problème de temps. trois ans la Sénégal war a toogaat di raam. du ñu jóg dox du ñu daw war a muñ trois ans. mais dafa metti muñ bi dafa metti mais dernière question ñu laaj la si vaccin yi. Mhm. Euh, gis nga actuellement euh, indi nañ ay vaccin yi commencé piqûre nit ñi gis nga coow bi am ci vaccin yi est-ce que yéen waa mouvement nitu dëgg vacciné nañ leen waa wala déet est-ce que pare ngeen pour ñu daal di leen vacciner. waaw vaccin yi ngeen ci am. vaccin yi. li ci li ci gën a garaaw mooy vaccin yi njëkk a ñëw mooy vaccin chinois yi nga xam ni daanaka àdduna bi yëpp jox nañ ko xaw ma quatre-vingt-dix-huit pour cent de fiabilité. Mm-hmm. boobu lañ njëkk ñëw. Mm-hmm. ñoom ñu ñoom ñu ñoom ñu vacciné wu si. Mm-hmm. après nag yenn vaccin américain yi vaccin Bill Gates yi. lañ nar a indil population bi ñu vacciné wu si. nañ ci ah, bàyyi nag yi ñu njëkk indi mooy yu baax yi. yooyu yooyu moom instant moo nekk topp. yooyu la gars yi gën a wax ni fiabilité boobu moo ëpp fiabilité. léegi nag yeneen yi la ñuy indi yu américains yi Bill Gates xam nga Bill Gates nee na dafa bëgg a réduire la population mondiale mm. rawatina la puissance démographique africaine dafa ko bëgg a wàññi loolu la Bill Gates war mm. te Bill Gates il est il est ñaari laboratoire yu nekk yu nekk kii yu nekk Amérique yoo xam ne ni produit na ay vaccin Bill Gates yàgg na def ay conférence di wax ni population bi on doit réfléchir waa ok mm-hmm. léegi nag vaccin Bill Gates lañu nar a jox man du ma vacciné wu waa mouvement nitu dëgg nee nañ du ñu vacciné wu parce que au fait corona bi ñu ñuy wax sax ñun dañ koo gëmul ni ñu ko waxee bañ ñu ci indil vaccin te vaccin bi ki ñu war a pikiir mooy mais li ñuy wax ni ku sa wujju di di sëlëm doo set. Mhm. Bill Gates dafa bëgg ñu wàññeeku ba pare mu ñuy jox vaccin ni daf ñuy faj. Bill fii la fi indi benn usine fii nii ci technopole bi usine bi douche ndoxu douche yi lay naq lay lay lay manque di ñu ko jox ñu koy naan moom moo ñu bëgg indil vaccin ñuy vaccin vacciné wu ma vacciné wuñu nañ ñu bàyyi si jàmm nañu bàyyi ñun ñu dundu xoolal pandémie bii ñuy wax nii moo amul fii Sénégal xam nga fii lan moo fi am. Mm-hmm. état bu bëgg a profité ci benn benn pandémie pour régler ay problème am pour gën a noot askan wi pour population bi suñu jógee révolté wu ñu ni si à cause de la pandémie c'est faux nañ ñu may jàmm ñun on est te suñu Seydina Mohamed jàngal lañ nañ si alxuraan ñu ni peuple bu yàlla créé ci peuple boobu. fañ mm-hmm. leen créé. suñu feebaree bind naa fa lu leen di faj lan moo tax mënu ñoo bàyyi ñun ñu xool lan moo ñu war a faj ci ci coronavirus bi su fekkee ni ça existe mhm. mais duñ ko def parce qu'ils ont décrété le nouvel ordre mondial Macky Sall moo ko wax 31 décembre mu ni il temps qu'on passe vers une nouvelle ordre mondiale nouvelle ordre mooy lan mooy nañu bàyyee suñu bopp ak faramason yi ñuy décider pour ñun faramason yu mag yi parce moom bàyyee na boppam ak faramason yi faramason yi ñooy décider a dugal ñun peuple bi ñun on n'est pas d'accord avec le nouvel ñun ñu d'accord mooy mhm. digle yenent bi dig na suñu borom subhaanahu ñun ñu nekk ci di wéy nouvel ordre mondial boobu ñoo ko imposer vaccin bi mu bëgg ñu ko imposer alors que affaire bi xam na ni demeewul noonu et pourtant artémisia bi mhm. madaga indi nañ fi artémisia ñoom nee woon nañ jënd nañ artémisia bi nee woon nañ dañ koy xool est-ce que baax na est-ce que jox nañ mu résultat parce que ça leur intéresse pas parce que loolu jógewul ci nouvel ordre bi moo leen bi mu ñëwee rek premier jour deuxième jour rek commencé nañ vacciner nit ñi parce que ça ça vient du nouvel ordre mondial te ñooñu ñoom ñoo ay chef am amul droit mu diagnostiquer li jóge foofu noonu il n'a même pas le droit à la parole devant eux ça c'est malheureux. on n'est pas un pays bi dab nañu ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. waa di jégalu waa mouvement Nittu Dëgg di leen jégalu bu baax ci wax bi xaw na bar xaw na kii bari na ay erreur maa ngi jégalu bu wér. Mm-hmm. nit kese laa dama matul. Mm-hmm. ñoom ñoo ma yebal mu ñëw représenter leen fi euh, di jégalu population sénégalaise bi ñuy déglu di leen wax ni ñun on est le mouvement Nittu Dëgg euh, on est pour la restauration des valeurs pour défendre l'islam mm-hmm. pour pour combattre l'injustice euh, demander à ce que ñu am un pays indépendant et indépendance totale ñu ñu ngi koy remercier bu baax a baax kile di Oumar euh, Sarr bu mouvement nitu dëgg ci disponibilité am euh, démb ci guddi rek laa ko mu accepté ñu ci invité ci euh, émission bi kon maa ngi ko ci remercier bu baax a baax di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h ci seen émission sociale toute la ville en parle émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet. réew mi euh, point com ma leen di remercier ba sam samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf